cat bañ ko dugg mu yàgg fi loolu te wér te yàlla na fekk ay njëriñu doomam ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. soxna te ku nekk xam na ne jigéen bëriwul li nga xamante ne attan na ko ci wàllum coow euh, tey bu coow jugee ci réew mi ñëpp di wax Wally Ballago Seck yéen ñi ko jege soxna Aida nu mu koy dundee. waaw c'est normal c'est normal euh, moo ëpp te nekk jabaru waykat surtout nga nekk jabaru koo xamante ni mooy number one ci ci réew c'est normal. il faut mu forger boppam te forger na boppam parce que xamoon na ne bu nekkee jabar Wally lii yëpp na ko ci fekk parce que coow dina topp lu ne dina ko dégg te yàlla dimbali nañu ba mu koo ko te yàlla na ko yàgg a gérer ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu ko ca dugg. Wally nekk artiste boo xamante ne nii vraiment ku ñëpp ràññee la ku ñëpp xam la te ku nekk xam na ne artiste ñëpp dañu koy topp quand même euh, coowal fiiraange est mën couple boo gis day am day mais attends booy yow tey bu ma doon dund ak yow sax nga may da nga fiir c'est normal fi ñëpp fiir muy góor muy jigéen c'est normal c'est normal. d'accord d'accord alors Eumeudi ci kaw seen Wally Ballago Seck parce que ñu bëri euh, dañuy wax lan mooy rôle Eumeudi Badiane ci kaw seen wàll Wally Ballago Seck gis nañu léegi ni nga koy encadré tey boo ñu doon fàttali rôle euh, rôle Eumeudi Badiane. waaw sama rôle lépp la lépp. ah bon tout poste yëpp yaa non du pas poste yëpp laa koy maa mais su ma rôle lépp la en tout cas na rafet na lépp di rafet rek waaw man foofu la nekk. fi ci biir groupe bi ndax ni mu la def ak fi mu la teg Wally Ballago Seck mën nañ ne lépp loo xamante ne xewle na ko yow la ciy jiital. waaw Wally fi ma teg fa la teg ñëpp mais lépp dafa nekk ci njëlbeen ga. dañoo tàmbali bu nekk ñaari personne mu metti lool ñu géré mu metti ñu jaar fu nekk nag dégg lu ne sa xaañ xaañ nañ ñu xeer da sànni nañ ñu toj nañ suñu suñuy suñuy vitre oto lu ne daj nañ ko mu metti lool te bi ñuy tàmbali ñu bëri dañu woon déet bëri dañu woon waaye nag sant Armand ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di yaay ndokkeel ci seen bés bi. waaw jaajëf jaajëf waay. ñu gis bu teew xam la hmm. tey bés bii ngeen di ñeente sa naka rek ñu ko. waaw dañuy sant yàlla ah sant yàlla ndax yàlla mooy maye te nit am na lu dul jeex te amul amul njaboot mu takk yàlla maye kii nga àndal di liggéey ak moom suñu borom may ko leer ah ñu koy jox tur fii ci kër waajuram mënuñu lu dul sant dolliwaat sant te di ñaanal liir bi mu dund màgg te barkel te ay waajuram fekkee lépp barke Cheikhul Khadim. mu jël xale bi daal di koy duppee yaayam ajaratu ñaan. tawféex rek la tawféex képp kenn gënu ko cee yaay waaw waaw. ñu ci bari doon wax naan Arma du ñëw ñu jékki saa yi gis la mu nekk surprise ñëpp parce que rumeur yaa ngi daw ñëpp ñu ne Arma dafa bàyyi Wally Ballago Seck dafa bàyyi Ramda. non surprise amu fi. yéen kay yéenay wër di wax rek <laughs> waaye Arma waxagul. léegi leeral lu ma ciy leeral man su ma yéen ëppoo ma ful wax dëgg yàlla xam nga à chaque fois dañ may wax ni je parle un peu mal envers euh, vos envers vos proches yéen ñii seen biir alors que demeewut noonu lu ci bëri yii laay sóoraale yi parce que man boobu ba léegi wax dëgg yàlla mosuñu ma bindal lu négatif quoi. te bu ma demoon bay jël samay décision boobu am naa fulla yi woo leen toog wax li may wax waaye jékki-jékki di ko gisee noonu noonu laa ko gisee. non mënu maa jaaxal sax parce que man moom dara bett ma ci luy jóge ci yéen <laughs> dara du ma bett heureusement man xam naa sama bopp te gémé liggéeyal xam na ma te xam naa ko it c'est l'essentiel waaw. ñëpp nga mën a tontu ñëpp ñan. bari dañu naan ok man ñëpp ñooñu ñuy wax lool seen point de vue la amaana mais nit moom xam naa ne am na fulla yi ci li mu ne daa ba ren bu ci gisul boppam xanaa war na mën a xool loolu loolu moom du ci sori quoi maa ngi sant sëñ Tuubaa. maa ngi sant sëñ Tuubaa daal. man bu ma bàyyee noppi euh, bu ma bàyyee nekk Ramadan mooy dama bàyyi fecc ci gàttal bis ngeen demee ba dégg ni Arma feccalatul waale c'est parce que Arma bàyyi na fecc barke Cheikhul Khadim. caméra ñoo la tim de leen am téye leen far bu leen demee ba gis ni Arma feccalatul waale mooy Arma bàyyi na fecc. fecc bi ngay yëngu ci la la ñëpp xamee ci Wally keroog ñu gis ki la di Ndeye Bane Ndeye Ndiaye Bane yaa daal di débarqué ñëw ci soirée ba di xam le ni foofu la bokk te bis ni ki tey foofu lay nekk mu doon polémique bu rëy ñu ne Ndeye Ndiaye Bane yaa day ñëw biir Ramadan maanaam ñu naan Ndeye Ndiaye Bane man daa ma ci problème wax moom dafa xool lu mu yëg moo sa c'est ça loolu moom ku ne nga ci droit ku ne da ngay xool li la neex rek nga ko li ci des moom Ramadan structure la entreprise du ku ñëw rek dangay ñëw rek bokk noonu yaa ah waaw loolu am na ñu koy gérer da ngay dem laaj njagu euro comme par exemple ndax mooy manager Wally Seck foo côté boobu tey expliqué xam nga fii entreprise la te ku nekk da nga am looy gérer côté boobu mënu ma ci avancé waaye tey ku ci mel ni njagu euro wala wala wala Koné wala Mohamed Seck bu ngeen demee bu ngeen laaj laajee ñoom dinañ leen ci indil ay waaye bu wax dëgg yàlla mënu ma ci wax lu bëri quoi. ba dégg ma mais Amady sama lépp la Amady sama jëwriñ la yaa damay topp ci ginnaawam rek ba keroog ñu ñu ñu ñuy bàyyi barki sëñ Bamba àdduna du neex ba ma diir ko màgg àdduna du neex ba mën a damay defante bi man yàlla na ma ba. je suis le seul danseur ah je défie quiconque musuma si fecckat sama àdduna bokkul ci samay samay kii quoi wax dëgg yàlla moo waral man respect laa jox fecckat yëpp bu ma la fekkee ngay def damay bàyyi nga def ba pare bu ma amee lu may def ñëw def mais quant ay defante ak siifante ñëw ma foofu quoi dañ ma yar ci bale jàngal ma ni nuy taxawee euh, comment on doit se comporter sur scène yooyu yëpp boo ko dajalee xam ko ay détails fecc moom xam naa ne doo ko bëri billaahi wallaahi wataalaahi ñeme naa laa dénk Ramadaan taxaw ne di la seetaan te xam naa ne doo ko yàq di nga defar yàlla na nga gudd fan waaw boobu ah li ma war la loolu jot na wax daf ma war waaw mais monsieur monsieur ministre def na li ko war parce que hmm. gouvernement noonu lay doxee hmm. eh bien que hmm. su su su su su su ku nekk fi nga war a jaar di nga fa jaar hmm. parce que ku ci nekk ñoom yaa ngi ca wàllaa ba nga war a ne hmm. te yaa ngi gis sa bopp di ni nga ko war a gisee hmm. kon monsieur le ministre merci beaucoup jërëjëf président merci beaucoup nga sa waajur bu jigéen di maman Kine nga xam ne jaar ngeen waaw am naa contentement parce que man euh, su ma amoon cent doom yu góor cent doom yu góor su ma ko amoon ñëpp yeneen ci bi ñëpp rasulilaay la du papa du nijaay du tonton du xarit du kenn du du dama xeeb kenn de waaye sam papa moo ñu yore noonu moom lu mu jur yonent bi lu man maa jarax waali Ibrahima waali donc man lépp lu ma jur sama kattan bu dee góor yonent bi lay tudd yàlla dogal nag muy doom bu jigéen ma xam ne nag am naa chance yàlla may na ma chance ma tuddee ko sama yaay. macha allah message la yow sama jabar raw na dalin koor yow. d'accord may tooñ yow. madame raw na foofu xale bu yaru la wax na leen sama doom la sama jabar la waaye suma doom la may bàyyam. Hmm. may bàyyi bu yaru la xale bu mën a muñ la muñ la fi lu ne ah, parce que am na rek yaa fuusa te doful nag jantal booy la jël baax <laughs> na jërëjëf merci jërëjëf jërëjëf merci merci gars merci alors ah, man ma xam nga man fu ne lay génn fii am naa contentement tey moom tey moom jaaga rek a xew mais xam naa buy weesoo ano ah attention mm-hmm. attention xam naa fii ak suba dina am luy dina am rek lu lu ñu fooyee noonu rek. comme lan mais c' est pas moi. waaw pas moi. Euh, dafa jëm ci koo xamante ni je l' estime beaucoup un jeune sénégalais bu ma bëgg estimer ko trop di ngeen ko gis bientôt. comme lan ah. mais jox ñu jox ñu mais mi ngi ñëw mi ngi ñëw non nañu may. surprise bi ñu ñëw surprise surprise surprise surprise surprise surprise surprise surprise